Moussa ni mu ko expliqué leer na naña parce que toutes les deux positions aussi sont pertinentes bi ci njëkk ni mu koy jàngate ni président loolu juble woon jàppoon naa tamit lu baax la parce que permettre président bi installé wu mu mën a disposer majorité pour éviter une instabilité à notre pays jàpp naa ni lu baax la xam nga candidat yi il n'est pas évident que dañuy génn rek ci parti au la coalition parti au pouvoir muy Benno Bokk wala ñu génn ci opposition bi gën a siiw tey ça que ce soit Yewwi Wallu candidat boo xam ni bokkul ci fenn il peut sortir de la société ñëw Sénégalais yu wóolu ko sur la base d'un programme qu'il a présenté mu falu nekk président imaginez ce président yi ñëw amul nekkul ci coalition benn bokk yaakaar nekkul ci coalition opposition bi gën a siiw amul benn ay ce qu'on pourrait appeler des bras ci assemblée nationale lu mu tëral mën nañ ko yàq su fekkee député yi amuñu un certain niveau de conscience. jàpp nañ côté mairie quoi à l'aise doon na permettre mën a dissoudre assemblée. gannaaw bi ko Sénégal yi fale aussi jox majorité bu ko accom bu ko permettre mën a euh, dérouler politique nga xam ni moom lañ ko moom lañ ko falee. mais dans la mesure aussi les députés jàpp nañu ni dañu war a moytu président sur la base des humeurs de moment rek mu mën a dissoudre assemblée nationale. Euh, ñoom ba tax voté wuñ ko ñu retiré ko essentiel mooy ñaari position yëpp baax na. Mmh. Bon, on en a de par